24 ci internet di euh, nuyu ci seen émission bi nga xamante ni moom mooy xalima bu ñaw euh, di dajale ñi nga xamante ni ñoom mooy borom xam-xam yi tey nag ñu am mbégte lool dalal euh, ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Mouhamed Diop mu ngeen gis ko ci xam-xam bu sell ba mu ngi noonu moom la ñu fas yéene àndal tey sëñ bi ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyu ak mbokki internet yi ñu soog a jàll ci laaj beeg tontu bi. waaleykum salaam. baada auzu billahi mina seytaani rajim. alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillahi salallahu alayhi wa sallam wa radiallahu taala an ashaabi rasulillahi salallahu alayhi wa sallam ajmain wala xawla la quwata illa billahi al aliyul azim ñu ngi leen ñuy fay nuyoo du nuyu mboolem fu nit mën a nekk ci àdduna bi te di ñu seetaan di ñaan yàlla lépp luñ fi nar a waxtaanee yàlla na nekk njariñ ñeel umma bi bi xamati mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa euh, mi ngi noonu Cheikh Mouhamed Diop euh, moom la ñu àndal tey ci seen émission xalima bu ñëw fii ci euh, Sunugal 24 Cheikh bi fi ñu tàmbale mooy comme fi ñu koy tàmbalee saa su nekk suñu dalalee boroom xam-xam muy wàllu seet mu nekk seet nekk loo xam ne si nii façon yi bari na ndax mën ngay ñëw ci seet ak yow ban façon ngay defee lii di seet waaw seet mooy ab sëriñ bi nga xam ne dafay ñaan yàlla te lépp lu muy dugg bëgg naa xam tàmbale bi nan lay demee ak mujj gi ca nan lay mujjee mooy màndargay seet te sëriñ boo xam ne dafay ñaar yàlla warta mën a bañ a ñàkk man seet ñun nag seet bu ñuy seet mooy seet bi nga xam ne moom la lislaam daganal rek mooy am ramlu ak listixaar ci ñaari seet yooyu daal génnuñ ko ñaar yooyu rek lañu seetee Euh, lan ngay soxla ci nit kii pour mën ko defal li nga xamante ci moom mooy ñaari seet yooyu nga. waaw nit boo koy seetal ala foog mënta ñàkk da nga soxla turam ak turu waajuram am nga sant moom euh, du cosaan ci diine euh, lu gaar la rek waaye lu gën a am solo mooy da nga soxla turam ak turu waajuram ñaar yooyu boo ko xamee rek ak li mu atam yi temps da ko soxla ci wàllu seet bi yooyu boo ko dajalee rek li nga bëgg a gis ci moom yépp yàlla dana la may. tawfiix fekkee xam nga yoon yooni seet ak nan lañ ko war a defee rek boo ko defee li nga bëgg a gis ci waajur yëpp yàlla dana la may danga ko ko gis ba nga xam ne boo ko waxee tamit amul dara loo xam ne dana ko ci mën a dindi incha allah. Euh, am na solo bu baax a baax sëriñ si dañu dañu dañu dañu bëri euh, ñu bëri ñu am xam-xam ba dañ ko doon ndax loolu mën a euh, lu xel mën a nangu la doon xam-xam am na. man dinaa wax ci samay wax. ci sama aqida aqida nag bu ko waxee mooy pas-pas. Mhm. man gëw ma ne xam-xam dañ koy doonu xam-xam moom li ma gëm mooy jàng moo koy maye nit li nga mën a doon ci say baay wala nga mën kaa doon ci say maam mooy ay kër yoo xam ne bàyyi neen ko fa wala ay yére wala ay bagage wala ay matériel parce que ñun ñëpp d'accord neen ki nga xam ne xamut lu dut opéré bu génnee àdduna nga feebar doon nagoo dem ci doom ji mukk mu lay opéré parce que doom ji jàng ko mécanicien bi nga xam ne xamul lu dul oto mu génn àdduna doom ji nekk fa ñëw rek na mécanicien laa yow doo jël sa oto di ko jox doom ji parce que boo ko joxee da lay da koy yàq ba tax na xam-xam jàngal rek rek rek moo koy maye. ndono nag mën ngaa doonu sa kër ak baay wala nga doonu sa leneen baay waaye li nga xam ne mooy xam-xam moom ci buntu man ci lu ma gëm xam-xam mooy jàng rek moo koy maye man goo mën a xam-xam dañ koy doonu damaa gëm na jàngaa koy maye. Euh, su ma la déggee kon euh, ñi nga xamante nii dañuy wax ne xam-xam dañ ko doon moonte dañ koy wax waaye di ñuy def ay li nga xamante ni moom mooy ay résultat mu nekk lu seen papa doon def euh, waaye ñoom dañ dañ ko doon ñu koy def ñoom di ci am ay résultat loolu yow nan ko mën a jàngate waaw ndono ci xam-xam ci li ma la wax kenn mënu koo dindi xam-xam moom kenn mënu koo doon parce que sa baay li mu yor daf ko tarbiya jàng ko topp ay nit yu yàlla di leen tarbiya ñu koy jox mi dajale di dajale di dajale ba am loolu yépp ba jàng ko ba maîtriser ko toog a toog pour moom jëflanteeg mbindeef yi pour ñaanal leen yàlla léegi nag kooku bu sa baay dajalee loolu yëpp yow jàngoo defoo dara sa baay génn àdduna yëpp nga ñëw dajale téere yi ne doon naa sama baay xam nga ne loolu boo koy wax tamit euh, sa bopp ngay nax rek waaye naxoo nit ñi xam na xam parce que loo gis loo gis ci àdduna danga koy jàng man ngaa nekk ak sa baay nag mu lay jàngal lii boo ko defee boo jëlee xob bi jël li def lii def lii def lii loolu d'accord naa waaye nag nit ku nit par exemple nit koo xam ne dafa jàng beneen jàng baayam jàng sariya mu bàyyam dee ndax moom mën naa mën naa gindi gindi nit ñi ci sariya wala déet dañ waxante dëgg waaye xam-xam doona jàng rek koy may doona man man gëwuma ko ci xam-xam mën naa nekk man jàng euh, mooy mooy priorité jàng mooy priorité ci xam mhm. lépp loo gis li li muy xam jàng moo koy may parce que médecine bi nga xam ne juriste bi nga xam ne dafa dem ba xam ne expérience ci opéré kook daf koo jàng bu fa jugee kenn du dem ci doom ji mu lay opéré parce que doom ji jàng ko lu mu doonu ci bàyyi mooy la fa bàyyam bàyyi rek ci ay alal ak kër mën na ko doon. Eh, am na solo bu baax a baax muy eh, Cheikh Mouhamed Diop kon eh, dégg ngeen ko ci leeral yi ñuy wax ci leneen sëñ bi nga xamante ni léeg-léeg nga gis nit koo xam ne day xëy di yëngatu waaye daraam du sotti mu mel na ku tëju kooku nu ñuy def pour tijji ko. waaw xam nga tëju dafa am umu am. Mm-hmm. umu mooy koo xam ne du mën am dara lépp lu ko nit dik du ci jot bu ko nit ooyee sax na ko kaay ma xam naa ngam balaa àgg sax am gàllankoor bu ko dal kooku dafa umu ku tëju nag mooy mën naa am waaye bu amee balaa muy amaat dafa yàgg ñaar yooyu nag pour nga ràññee ko dafay foog nga foog nga doon nitu nitu baatin mooy tax nga mën a ñaar ràññee ñaar yooyu ñaar yooyu nag kum ci manti dal am na ci jumtukaay yoo xam ne ci yoone alxuraan la bu ànd ak sunguf boo ñëwee dañ la koy defal buñ la ko defalee fekkee da ngaa umu woon am na ci boo xam ne boo koy sangoo da koy jaareel ci indi yi nga xam ne moom lay jigéen ñi toggee saafara bi dafay jaar foofu ni saafara bi di jaaree ci indi yi di dem ci bën bën yi ci bën bën yi di dem ci sóo bi nga xam ne moom koy sangoon boo ko sangoo tamit lépp loo xam ne dafa nekkoon ci sa yaram ci wàll umute ci wàllu tëjute lépp dana dañ ci sa yaram ba set wecc te lépp loo xam ne yaa ngi koy yëngatu di ko jëflante diggante yaak nit ak nit bu soobee yàlla ndam rek nga ci am waaye doo ci am gàcce mukk mais loolu euh, euh, li nga wax noonu day am seet avant euh, ngay def li nga wax pour mun mën a xam kii uumte la am wala dafa tëju. waaw man si sama jëflanteeg nit duma dugg ci mbir mukk te xooluma ko. Mm-hmm. balaa may jëflanteeg nit dama koy xool. parce que xam nga nit bu ñëwee rek na la man de sëñ bi dama umu damaa tëju bëggoon nga may ma li nga xam ne moo may tijji boo jëloon li nga xam ne nit bu ko sangoo ma kenn mënu koo sangoo te du ubbeeku. boo ko joxee tamit du ko jariñ dara parce que xamoo li nga xam ne mooy gàllankoor bi nga xam ne ba tax mënta am boo xamul gàllankoor bi nag boo tëbee jox ko dara tamit da nga koy yokk joote bu ko defee mën a sëñ bi xamut te fekk ko jox baax na waaye yow xamoo lan moo waral yëfam yi parce que da ngay xool ba xam kii ndax dafa umu wala dafa tëju boo xamee ñaar yooyu nag di nga xam yor yoon bu gaaw boo xam ne moom ngay dindee leer ko ci beneen yoon boo xam ne dindi bi bëggoon naa nga ñëw ci ndax xam-xamu bu ñuul la wala alxuraan lay ngay ngay jëfandikoo man lépp lu may jëfandikoo mooy lu sariya nangu alquran rek ci laa nekk alxuraan ak sunguf sunguf nag <laughs> alquran yaxal na ko mooy xob yeeg gàncaax yeeg yëpp ci ci ci yooyu la rek te yooyu yëpp dara génn ci alquran ak sunna waaye lépp loo xam ne lu ñuul la xabaar yi daal yooyu yëpp wax dëgg yàlla euh, man du ma ci du ci yëngatu lépp loo xam ne lu ñuul rek man alquran ak sunna daal doy na ma ak mm. sariya léeg-léeg euh, nit di dox di dem ñu naan kii amul kaaraange lu jóg rek dal ci kawam kaaraange euh, lan lan lay def kaaraange lu mu def ci mooy yow tabax sa kër ci xam nga ne kër gi am na sécurité lan moo tax kër gi am sécurité mooy fondement bi parce que bu amul fondement brique boo ci teg dafay daanu nit ku amul kaaraange nag dinaay wax na kaaraange mooy mooy dund doomu aadama parce que nit ñi foog nga tëleen ngir nga mën a li ngay yóotu nga mën caa jot parce que boo tëwul nit ñi nit ñi daneen bëree yow te bu ñu bëree daneen daneen daanu ci sa kaw kaaraange nag boo ko amee da mën a mucc say noonu da nga mën a mucc ci làmmiñ da nga mën a mucc ci lépp ba nga xam ne lépp loo yëngatu yàlla daf la ko jox ñàkk kaaraange dana tax ab coo am nga ñëw fekk fa amoo kaaraange ñu fekk la fa ñu dóor la muur wala ñu dóor la nàngam yooyu yëpp dafa bokk ci xeet ñàkk kaaraange ñàkk kaaraange mën nga génn léegi nii di daw rek benn affaire fakkatal la nga daanu wala oto fekk la fa fër la yooyu yëpp dafa ko boo ko jëfandikoo wala nga takk ko lu xewoon ba xew bi jeex nga ne ah lan moo ba coow li jeex nga doog a arrivé. te yow loolu koy defar yow. ñu ngi koy defar te ñu bëri xamee nañ ci am na yoo xam ne lan la lan la est-ce que am na loo xam ne su ma la ko joxee nga takk ko fekkee da ngay takk boo ko takkee fépp foo man di nekk coow du fa am mukk yow coow dafay am ba jeex nga doog koo fekkee te doo dox mukk ba nit saay-saay di la yongaan na mu ngi lay def dara fekk mu ngi nekk ak yow bandi du la laal agresseur du la laal nit ku bon ku jug dafay def lu bon du man ci yow dara koo xam ne daf lay xeex du man ci yow dara lépp loo xam ne nit daf koy def ci xeet yu bon da nga mucc da dund ba dee doo doo am accident da ngay mucc ci accident boo naree accident sax bu accident naree am sax yow da ko yëg ci sa yaram ba nga xam ne accident lu mu am tamit yow doo ci mucc fekk yaa ngi yaa ngi ko yor mu yëg ci sa yaram oto dugg tamit oto boobu rek lay am ak fekkee da ngay takk dañu la ko jox nga takk fekkee doo ko takk am na boo xam ne dañu la ko jox nga sangoo ko ci juróom-ñeenti fan yoo xam ne dafa tegloo te duñ ko dagg. Mhm. ñu wax ci leneen loo xam ne si ni lu compliqué la muy noob nopp nekk na loo xam ne si nii bëri na ay façon am na ñu naan euh, boo ko defalee nit euh, bu fanaanee bu ko lekkee faatu am na ñoo xam ne si nii am na ñoo xam ne am nañ euh, boo xam ne si nii mën nga ko mën na fanaan te ka koy jëfandikoo du ko wàññi dara man nga ñu waxal dara ci ci nopp. nopp gu fanaan moom baaxut. muy yëpp nag. nopp moom gu fanaan moom. baaxut. te sëriñ bu koy def tamit na ko bàyyi. man nag nopp gu may def mooy diggante góor ak diggante jabar ak jëkkër joo xam ne dafa dëngoo. wala koo xam ne dafa bëgg jigéen di ci financé ba sonn mënu caa jot. waaye képp koo xam ne da jël jigéen pour bëgg koo foyee. man boo ñëwee balaa ma koy def dinaa xool ma xoolee dinaa xam ne ban intention nga am te intention boo ci am su ma xamee ne intention caaxaan la la ko defal. parce nit loo xam ne daf ciy caaxaan. waaye loo xam koo xam ne dafa dëngoog ay ay doomam nekk njaboot. nekk ci kër yàgg sa sa jabaru doom yi mënoo leen juboo kooku mu am na xeetu noonu boo xam ne dañ koy def ci res bu ci njaboot gi yëpp lekkee ni nga xam ne res dafa nooyee bu soobee yàlla yaag njaboot gi yëpp dangeen ngeen jubóog noonu da ngeen nooyee noonu koo xam ne tamit dafa dëngoog jëkkëram jëkkëram mënu koo defal wala jëkk jëkkër ji loxo bi dafa gàtt wala daf koy fitnal daf koy nangam te moom bëgg na toog ci sëy bi ba nga xam ne sëy bi dootul yëngatu kooku tamit am na loo xam ne dañ koy def ci xordonk xam nga xordonk bu tàggoog këram rek dafa dee mm, nob googu nag buñ ko defee yaa yaa ki nga xam ne moom lañ ko def dee rek moo la ñu tàggee. fekk yéen a ngi dund. kenn mënu leen a tàggee. Mhm. parce que xordonk heure bu tàggee këram rek mooy dafa dee. ci xordonk lañ koy mhm. def. donc kon e, e, façon noob yu bëri ngay defal ça dépend ci euh, banaana. am na mhm. ci soble lañ koy def bu soble bi nebee jeex na am na ci meewu nag lañ koy def bëri nay poson waaye yooyu yëpp nag amul dara lu ci génn alxuraan. Euh, kon mi ngi noonu seen euh, émission xalima bu ñëw Cheikh yaa ngi noonu képp koo xamante ni yittewoo nga ko rek mën nga ci jaare pour jot ko 77 77 437 99 99 ñu gën a xuus euh, sëñ bi euh, wax ci li nga xamante ni moom mooy bayre euh, bayre nekk na loo xam ne képp ku yëngu rek soxla nga ko dem yaakaar naa képp kuy dund sax laa wax ne mën nga ko soxla nga bayre ndax lépp lu yaay di yëngu rek soxla na ñu ràññee ko ca ndax mën nga ñu dikkal tamit ci bayre ak njëriñ li nga xam si ni daf koy def ci nit. waa bayre dinaa wax ne képp koo xam ne amoo bayre mënoo lijjanti dara mu sotti ku amut bayre mënoo lijjanti dara mu sotti. bayre boo ko amee da nga génn sax li nit waroon a moom yow ñu jox la ko danga dem ci mbooloo moo xam ne da leer ne lii ñi la jox di wa ko waroon a moom waaye sa bayre mooy tax ba xabtal nit ñi jox la ko bayre mooy tax nit sopp la te nit danaay wax ne nit du jox kum sopput bayre mooy tax lépp looy jaay bu ñàkkee xorom sax nit ñi danañ ko wër bayre nag bëri na am na am na am na bayre dafa am ay façon am na bayre yoo xam ne pour yow sa jëmmi bopp gi la nit ñi di la tudd ngay mën a am ci nit ñi dara am na bayra boo xam ne ci wàlli njaay la am na bayra boo xam ne ci wàlli koo xam ne jour bi fubal la bëgg a bëgg nangamam ak bayra boo xam ne ci wàlli artiste la bëri na ay question bayra daal man dinaay wax ne nit ki jaay xorom sax sama bayra bu ma ko joxee nit ñi daleen ko wër képp koo xam ne jëflante naa ak yow ci wàlli bayra ak ci domaine boo man di nekk bëgg nit ñi dégg la ci moo wala bayra am na boo xam ne dañ koy def pour bayra tubaab ñi nga xam ne ñoo nekk Europe pour bëgg tubaab yi nga xam ne moo la ñuy jëflante pour bëgg ñu jox leen bopp te bu ñu leen joxee bopp tamit lañ bëgg ci ñoom ñu man koo am am na ci boo xam ne dañ koy liggéey bu ñu ko liggéey dañ koy booleeg karawu tubaab ak xeetiwu xaalis bi nga xam ne fa nga nekk soobee yàlla boo lakkee xaalis bi boole ko karawu tubaab bi tubaab ba nga xam ne moom nga bëgg ñuy ñi defal la ko suñ ko defee sa tur yaag moom bu soobee yàlla daal li nga bëgg ci moom da nga ko am te waxtu wu nekk politiciens yi xam naa ni kon euh, euh, dina la war a sonal ci mbir moom wàllu boobu wàllu bay waaw am na ci ñoo xam ne sax du jar ñu tudd seen tur mm. waaye am na fuñ jaar ak ñoom te bañ fay ñëw am na nu meloon waaye léegi mënoo tudd ay nit ci Sénégal te boole woon leen ci te doomu adama nag ñi say ñi sa tur di yëkkatoo ko rek sa wërsëg dafa yëkkatu parce que tur ak wërsëg dañoo ànd sa tur fekk mi ngi yëkkatu sa wërsëg di yëkkatiku képp koo xam ne daal da bëgg bayre pour nit ñi dégg la boo ci jëflante ak nit ah da nga ci am satisfaction boo xam ne ak xol bu sedd daal incha allah kon euh, loolu mooy bayre xam naa li ñu des ci waxtu bariwul xam naa li ñuy tënk euh, ponk yi ci des muy wàllu euh, wàllu rab Euh, euh, rab bëggoon naa aussi nga ñëw ci bu baax a baax ndax rab rab nekk na loo xam ne si nii lu euh, sonal askan bi la muy góor di jigéen di mag di ndaw xam naa ne daal rab moom doy na waar. rab dinaay wax ne bokk na ci li nga xam ne moo lëmbee jamono jii dafa lëmbee jamono ji te dafa bari lool ñun nag yàlla dimbali nañu am na ci cëwdi goo xam ne dañ koy liggéey cëwdi gi dafay ànd ak cuuraay bis boo ko takkee. bu rab nekkoon ci yow dana dañ ci yow ba set fekk yaa ngi koy suuroo rab dootu la jege mukk bay laa yu diin moom takkal ceew di gi am cuuraay gi rek jeex na. muy góor muy jigéen yow noonu muy góor muy jigéen. day dem wala day. dafay dañ ci yow ba set wecc di gi fekk ceew di gi boo xasee ba takk ko ci sa ndigg. Mhm. rab bi génn na ci yow ba set wecc. di googu laa bëggoon nga faram fàcceel ñu si tuuti parce que tamit am na ñoo xam ne si nii xamuñu lan mooy ceew di maanaam est ce la. Mhm. du baatab olof. Mhm. Euh, mooy téere boo xam ne Euh, buñ koy ëw ko koy ëw dana am melokaan boo xam ne moom lay yor yow mu koy takk nag boo koy takk timit dana am sàrt yoo xam ne moom la ñuy wax ni nga koy takkee naa koy takkee te cëw di tamit nit ku koy ëw ko tiim te bu koy ëw tamit kenn du ko gis te bu koy ëw dafay jonkan te bu jonkanee tamit dana am loo xam ne moom moom ci waxtu wu mu koy ëw am na loo xam ne ñun dañ ko koy jox moom lay taal di ko di ko di di taal ko di ëw téere cëw digoo moom bis bu nekkee sa ndigg moom bis ba nga koy takk boobu lay rab dañ ci yow ba seen ba rab ci dañ ci yow ba seen rab bu mu mënti doon parce que rab ñetti xeet la am na bu baax am na bu bon am na bu digg dóomu mhm. am na boo xam ne dafa bon boobu da ngay dana gis jigéen ju mel nu mar a mel mu tere ko mu am jëkkër mhm. wala nga gis góor goo xam ne dafay masturbé boppam di di foye awram di foye awram ba yëg bànneex moo koy gën mu jaxasoog jigéen mhm. wala nga gis koo xam ne daf lay xërtal ci nit boo nekkee sa sa copain nga gis ne sa xol dafay tàng bu demee nga namuwaat ko wala jigéen joo xam ne dafa nekk ak jëkkëram heure bu nekkee ci kër gi dañu xuloo rek bu jëkkër jemee mu oo ko di ko baaloo yooyu yooyu da nga gis ne jëkkër war naa mën naa see jabaram ba mën ni war a génn pour sos doom rab bi soppi ko def ko ndox da ngay gis rab boo xam ne boo téyee alal daf la koy yàqal gaaw xirtal la alal ji gaaw génn ci yow nga yàqule suñ ko doon faram fàcc daal rab dafa jéggi doy waaye daal man sama cëw di ak cuuraay ju ma lay jox daal boo ko takkee moom rab lu mu bon bon bon. day dañ ci ba mhm, kon euh, rab mi ngi noonu euh, ponk bu mujj bi euh, bala ñuy wax ci li nga xamante si moom mooy tolluwaay jamono muy papier li nga xamante ni ñi nga xam muudu moodu yi maanaam suñu mbokk yi nekk bitim réew dañ koy soxla bu baax mu nekk loo xam ne si yitteel na leen léeg-léeg dañu am ay jafe-jafe lool ngir jot ci kayit yooyu ndax am nga ci saafara ci ñooñu. waaw loolu moom <laughs> daanaka bëreetumul li ma ciy wax sax parce que dañu xamee ci biti bu baax a baax. te lañ ko daan liggéey ba léegi moom lañ koy liggéeyee mooy képp ku ñu jox euh, saafara bi nga xam ne moom ngay sangoo dafay ànd ak journal bi nga xam ne moo gën a siiw ci dëkk ba ngay nekk journal ba ci gën a siiw daal ak place bi nga xam ne bokk na ci place yu gën a siiw ci ci région ba nga xam ne fa ngay fa ngay dund nga am ko suuf si ak journal bu gën a siiw ak juróom-ñaari xobu garab yoo xam ne ñu ngi ciy réew moom doo ko sangoo mukk ci at moom buñ doon may juróomi nit kayit sax da nga bokk ci juróomi nit yooyu fekkee da ngaa déposé timit boo ko utilisé danañ la oo na la ñëw a jël sa kayit fekkee dafa nekkoon à court timit retard boo utilisé loolu da ñëw jël sa kayit. ak ñi ne ci mbiram kayit moom yaakaar naa ne. Euh, comme li ma wax léegi xamee nit ñi fii ci biir réew mi ak ci bitim réew. Mhm. même koo xam ne dafa jàng ba yor ay dossier di déposé tam mënta am timit. Mhm. yooyu tamit kazaalika na ko ak mhm. kayit bu mënti doon nga koy xaar daal. Mhm. boo ci jëflante ñun da nga ci am li nga bëgg bu soobee acca kon mi ngi noonu Cheikh Mouhamed Diop la ñu àndaloon waaye sëñ bi ñun euh, émission bi bala ñuy euh, tàqaliko euh, dañuy faral di laaj li nga xam ne si moom mooy tolluwaay jamono jamono ji nag ñu gis mbir mu génn muy benn phénomène benn jigéen bu génn moom mooy Seyda Zaman muy sangu jamono mu nekk mbir moo xam ne si nii doy na waar vidéo yi ñu ngi wër muy def ay yoo xam ne si nii kenn xamu ko benn tarixa la fi bëgg indi yow mbir moom noo ko noo ko jàngatee waaw xam nga dañoo toll ci mujj ak jamono te mhm. yonent bi sallallahu alayhi na ci mujj ak jamono da gis lu nekk mhm. xaatimi nabi wa imaamul mursalin te wilaayatu xutbaaniyatu mhm. benn jigéen rek moo ci mosa toog ci àdduna mooy seydina Fatima bint Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te juróom benn weer la ci toog wilaaya qurbaaniya agguma ci wali yu sax aggu astafurla agguma ci ci yónnantu waaye qurbaaniya laa la wax ba àdduna sosoo ba léegi benn jigéen moo mos toog ci wilaayatu qurbaaniyatu mooy fatimatu bintu rasul mhm. te juróom benn weer la ci toog genn àdduna mhm. kon nag leneen lu nit mënta oote rek xamal na ay caaxaan la mhm. te nag bu dara nekkut ku ñëw rek da lay yóbbaale ci dañoo toll ci mujj ak jamono yónnantu dootut amati mukk bay laa yawmi diin mhm. yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo kaste yonent yi mhm. mu jëddit nag mën naa am xarnu bu xarnu bu nekk yàlla mën na indi mu jëddit mhm. waaye nag zeyda zaman yooyu daal man jàpp naa ne ay fol ay ay folklore yaag <laughs> ak koo xam ne bëgg nit ñi xam la ak ñu waye di ñi nga xam ne eh, seen bopp yu ndox nekku ci man da wax dëgg yàlla su ma demee bay topp ci jigéen dam topp sama nday moom a gënal may topp beneen jigéen. ayca kàddu bu mujj bi ñu yëkkati. sant yàlla gërëm leen di ñaan yàlla yàlla nañ yàlla defal jàmm defal ñu ko ci suñu réew eh, yàlla def ñu ay jullit xàqan te yàlla mu ñu juddu juddal ci eh, juddu nañ ci lislaam ba yem nii bu ñu yàlla rey yàlla nañu yàlla yàlla rey ci lislaam te yàlla na yàlla jàpp ci suñu loxo awale ñu ci yoon wam bëgg ak yoon wam gërëm moom yàlla nañu yàlla jàpp suñu loxo te awale ñu ci yoon wam bëgg. ak yoon wam gërëm wa ma zalika ala bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu alors mi ngi noonu euh, seen émission xalima bu ñaw la woon la ñu àndoon ci ak euh, Cheikh Mouhamed euh, Diop seqoon nag moom waxtaan ngeen dégg ponk yu am solo yi nga xamante ni développé na ko képp koo xamante ni yitteel na la rek mën nga jaar ci numéro bi may bëgg a joxe muy 77 437 99 99 437 99 99 sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax